li ñu gën a bëgg gën koo fonk gën koo wormaal moom la ñuy gën a ñàkkee kers moom la ñuy gën a ñàkk teg fi barab di saaga kilifa diine yi di leen wax wax yu ñaaw mi yenn manifestation religieuse yu mel ni gàmmu euh, ñu taxaw lokk rek ci ci ci saa su ne ak mu jot ñu wax ci jullit ñi lu ne man euh, dama jàpp rek ni ay jullit moom lislaam may na leen ñu wuute ay gis-gis waaye mayu leen ñu noonoo te am na ñoo xam ne ni ñuy waxee euh, ndax ab jullit boo ko tuddee mushrikoon wala nga naa ko ahlu bidaa wala saa boo xëyee yaa ngi jëm ci ay ayibam di ko limtu di ko lijjanti di ko wax kooku dama defe ne weer sa moroomum jullit rekk mooy sa yitte ndax yow du loo jéem a saafara te du loo mën a saafara te ayib yi yiw kese la dajaloo jàng alquran jàng xasida way yonent bi jàng burdatul madix ak téere yu bari yoo xam ne bañ koy def sopp rasulullahi sallallahu alayhi wa ak màggal ko rek moo taxoon ñu di ko def kon loolu jàpp naa ne jarul saa su ne ay jullit di taxaw di ci coow mel ni rek dañoo bëgg nit ñi bàyyi sopp gi ñu sopp rasulullahi ak màndargaal gi ñuy màndargaal cofeel gi bi ci mujj mooy ñi nga xam ne saa su ne ñu ngi saaga kilifa diine yi gis ngeen bu yàggul euh, ki nga xam ne moo doon euh, dessiné yonent bi dessin bu ñaaw boobu ci Suède euh, ay nit menacé ko ay jullit ñu boole ko ak ay garde du corps muy ànd ak ñoom guddi ak bëccëg yàlla mi bëgg yonent bi te teg ko fa mu ko war a teg moo ko booleeg garde du corps yooyu nga xam ne yaakaaroon nañ ne mën nañ koo sàmm aar ci daamar te mu mënu ci dara te ku mel ni sëriñ Touba nga xam ne jéggal na ñépp ndax dafa ne afawtu anil ahdaai turan li wajhi man waaye da caa teg lu am solo mooy nag alimtu yaqinan anna mawlaaya kaana lii wa anna al muqaffa man qalaaniya yardamu yàlla li mu may yonent bi sallallahu wa sallam Serigne Touba li mu ko way way neex yi mu ko way ak ni mu ko topp te ak ni mu ko liggéeyee sëñ tubaa nee na am na xam-xamu yàqiin ci ne képp koo xam ne bëgguloo ko wala nga tooñ ko wala jubluwuloo ko yonent bi a jëflante ak yow kon njàmbat gi bari na waaye jarul jarul jarul jarul xër ndax ñoo ñi nga xam ne loolu dañ koo baaxoo maanaam tàmbalee ko ci sëriñ bi ba agsi ci Cheikh Mouhamadou Mountakha lu ne ngi koy wax ñu ngi leen di gis mënuñoo toppanteek ñoom ci ñàkk worma ji mënuñu leen a saaga ndax euh, loolu du suñu aada du suñu jikko li nu mën rekk mooy muñ ndax xam nañu ni boobaak léegi kenn ku ne yaa ngi naan kii bu ma ko jàppee dinaa ko rey kii bu ma ko jàpp du ngeen leen def dara yéen da ngeen di xëy rek gis la leen di dal di leen dal benn par benn ñoom ñépp lii ma leen di wax dama leen ci jël seere rek sallallahu alayhi wa sallam mi bëgg sëriñ Tuubaa teg ko fi mu ko teg ndax sëñ bi liggéey bi mu ko liggéeyal moo leen di yaral boppam moo leen di def loo xam ne ca kamuy tàmbalee ñi ci des seen àddina day mitti ndax ñu dinañu séenu loolu te xam nañu dina agsi bu doon lu ab jullit mën a faj wala mu war koo faj day fekk mu doon lu woyof waaye jéggi baat wala jàll baat Serigne Touba woyoful ku ko def sallallahu alayhi wa sallam ci boppam moo koy xajal boppam te am na loo xam ne day ku mu dal war ngaa yëg ci sa bopp ne texe di nga tey ëllëg koo xam ne lislaam jaraloon na ko lu ne sallallahu alayhi wa sallam jaraloon na ko lu ne buñ demee ba ay gone yu xonq cur di ko jàll baat gone yooyu ak fu ñu mën a nekk ak nu ñu mën a mel war nañu yëg ci seen bopp ni li leen dal du lu woyof du lu sedd noonu sëriñ Tuubaa yi nag yu jëkk ya dañ daan wax di jëf moo tax ñu jële ko fi yóbbu ko ci géej gi jële fi bakkanam doonoon na seen yitte lool te boobu am nañu kattan gi am nañu man-man bi am nañu pexe yi te taxul ñu am ndam ñi ñu fi bàyyi woon it muy maam Thierno Birahim ak Cheikh Ibrahima ak njaboot googu yëpp tasaare leen ak fitnaal leen doonoon na seen yitte te mënuñu ko bu fekkente ne nag def vidéo saaga dong moom nga jàpp ne mën naa yàq birum sëñ Tuubaa sa texe di rek moom ngay fësal kese ci vidéo bi waaye mbirum sëñ Tuubaa ñoŋ na ñoŋ goo xam ni te ñoŋee fa suñu borom mi nga xam ni benn loxo bu sob bu gudd wala bu gàtt àggu fa foofa la ñoŋee sallallahu alayhi wa sallam ni ko sëñ Tuubaa way ak ni mu ko wonee cofeelam ba mu takkoo ak moom faw lu waay def sëñ Tuubaa yonent bi yëg na ko dégg na ko mi ngi ñëw nag dafa bindoowul ni noonu sunu yàkkamti yi ak sunu sunu mer yi déedéet waaye saafara bi lu ne fàng lay doon lu ñëppay tëj bët lay doon lu yar ñu bari lay doon luy tiital ñu bari lay doon ci wa xàq ak war ma ji nga xam ne moom la war a jox Cheikhul Khadim loolu kon bàyyi nañ ko ci loxoom moo doonoon sunu kàddu di leen ndokkeel rek ci weeru gàmmu gi di ñaan lépp luñ ci jaamu yàlla ak lépp luñ ci julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu nangul na ko